asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat suñu yaakaar ci naa Ahmadul Xadim <coughs> ñoo ngi ñaanal euh, Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu yoon wi suñu boroom gën a guddal aw fanaam te gën a dolli ak wéram waaye di jaare ak a ñaanal euh, Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp ziar boobu nag ñu jaarale ko ci e, kanam sunu jëwriñ ji ñu toog di sunu sëriñ di sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mbokk yi tey ñu am mbégte noonu ñu leen ko waxee ci e, tàmbali gi e, ñëw fii ci dëkk bi nga xam ne moo di <coughs> njurul fekk ko fi muy daara joo xam ne sëriñ Salihu Mbacke Khadim Rasoul moo ko joxoon mu sanc ko ci atum 1990 sanc wu ko dara nag lu weesu jaamu yàlla ak liggéey ak yar taalibe yi tàggat leen ci njàngaleem Cheikhul Khadim loolu moo tax ngeen gis ne daara ji eh, tool yaa nga ne ñuy jàmm eh, liggéey la yàlla waaye daara jaa ngi nii ñuy jànge alquran waaye nag jàkk jaa ngi nit ñuy jaamoo yàlla ba ni ngeen jàkkaarloo ak kaamilu alquran boobu nga xam ne lenn ci sëti sëriñ eh, leen bind nañ ko boole kaamil bi ak jëmmi nit ki jaayante ko ak moom ngir jëmmi yàlla loolu moo tax mbokk yi tey jii seen télévision Lamfal TV ñu ñëw fii ànd ak seen rajo ICAB FM ñëw fas yéene taataan ay kàddu ci Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir kaddu yëpp nag doon kaddu njariñ ndax mbokk yi yaakaar naa ne yàgg ngeen ñoo topp ci jataay yi ay kaddoom saa yu ko yëkkatee moo xam muy màggalu Cheikh Abdoul Khadir yi jib wala weeru koor muy jeexal kaamilu alxuraan bi ànd ak yéen ci guddi yooyu da ngeen gis ne kaddu yooyu des na ci mën a barkeelu waaye di ci dund ak di ci jariñu ba eh, eh, eh, at mi del siwaat ñu fas yéene ànd ak moom te di ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla nangul ab liggéeyam te guddal aw fanam te musal ko ci mbooleem pakk ak ndog yi ba mu àgg fi nga xamante ne bii fa la ko suñ borom jëmee te men ndog bañ ci am kon ñu àndandoo taatan kàddu yi nga xam ne ginnaaw bu mu nuyoo ba noppi mooy bàyyi ko ci moom jëm ci mbooleem mbokki jullit yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum yéen mbokki taalibi yëpp asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu niñ ko baaxoo def ci waxtu wi buñ ci tolloo di waaj a jub bis bi ñuy fàttaliku sëñ Abdul Xaadir Mbàkke naka jekk ñoom ñii dañoo baaxoo di fi ñëw ñuy fàttalikonte rek ci waxtaan yu baax waaye nag loolu lépp ñu ngi koy def ci kilifteefu sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci jëwriñ ci kër sëñ Abdou Khadir Mbacke ñu ngi leen di jotli kàddoom ñu ngi leen di jotli ab nuyoom jëmee ko ci mbooleem jullit yi ak jëmee ko ci mbooleem mbokk yi di siyaare it di jiital ci siyaare bi nag alxalifatul am li taifatil muridiya ayyadahu llaahu wa nasara wa atama muraada muy sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal àggale yéenéem ñu moom it ñu ngi koy siyaare ndax waxtu wu moom ci boppam rek jëmmam da day jàngale ci ñoon ak taalibe jëmm ji rek dañuy jàngal ak taalibe dox yi tamit dañuy jàngal ak kon nag mënuñu nañu dul rek ñaanal ko ci sëriñ bi rek tey sàkku ci moom ñaan sëriñ Seex nag ni mu ko waxee woon rek Euh, luñ ciy def ci kër gi lu ne rek sëñ Muntaxa ndigalam la ñuy déglu ak kàddoom ak baatam kon ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am dañoo baaxoo waxtu wii saa bu jotee ñuy waajal màggal bisub sëñ Abdul Xaadir di fàttaliku ay jëfam ak i jaar-jaaram di at mu bees bi waaj ñëwit day yell ci ñoon ñu sànni ci ay kàddu yoo xam ne dañuy soññaat mm-hmm. ndax sëñ Abdul Xaadir ak fàttalik ko mooy fàttali lu baax rek ak fàttalik ko uh, siiraam siiratuhu saatiya loo ci fàttali ko rek dana la jëme ci lu baax dana la jëme ci nga gën a bëgg sëñ bi dana la jëme ci li nga nekk nga dëggu ca dana la jëme ci ngay defar te bañ a yàq dana la jëme ci nga topp sunna dana la jëme ci sag mooy ci sëriñ bi nga dëgëral ko te bañ caa dégg dégg kon fàttalik ko lu ama am njariñ la ndax moo ki kemam sëriñ bi def na ci ñoom lool kuñ fuñ koy waxtaanee ku ko déglu te déglu ko xel mën nga caa jële loola jariñ ci wetu àllaaxira te dana la jariñ it njëkk si àllaaxira fii ci àdduna ndax waxtaane boroom xam-xam waxtaane nitug yàlla ab dundam ku ko déglu dana la eh, doy sëkk bind ci fekkee lu baax ngay wut ndax seeni jaar-jaar te loolu lépp nag li ci mata yéeme mooy loolu lépp sëriñ bi rekk moo yaatub liggéey kenn ku ne mu def ci yow lool boo yoroon sa jomi bopp di góorgóorlu sa bopp it mënu fa kenn kon loolu sëñ Abdoulaye laa ko mos a dégg <laughs> kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ci darajaam ndax defar mbooloo moo xam ne ni ko sëñ Saliou daa waxe maa am na bi suñuy waxtaan mu ne sëñ bi boo ko dee seet ñim defar nuñ xaje woon ci jenn jamono moo lay jaaxal waaw nuñ xaje woon ci jenn jamono <laughs> <laughs> nee na mujj daal la wala la wala fii doon wax naan eh, Euh, am yeew mu ci mat rek daal dem tàbbi géej mm-hmm. ñoom ñëpp daa mel ne noonu lañ daje woon dañoo daje woon <laughs> ñëpp di mat matum yeew <laughs> ba na nag ñu ñu ñu tàbbi ci géejug sëñ bi waaw amut fu mu <laughs> kon nag alhamdulilah kon yàlla na yàlla taas ci barkeem ndax moom euh, dadaa wax naan foo euh, foo foo dégg fu waaye defee lu baax ne man neex na ma ku ko jot liit Eh, dana danaa yaakaar ne da nga ci am tiyaaba ku wax diggante bu rafet bu ne wala diggante bu boo xam ne déggoon nga ca dara lu ñagas nga ñëw ne ko ñu nga njëkk koo wax ne ko rafet eh, ra taxoo nañ dana leen da nga ci am tiyaaba de yow mi ko wax rek ci ci ci ci fu mu ko mën a diggee nag ci lislaam jëpp mm-hmm. rawatina ci bokk yi kon noonu la bëggee woon lu baax noonu la doon dundee sunna noonu la doon defare noonu la it la toppee woon uh, waxi së sëriñam di uh, soog a nekk nag lim doon ci ñoom nga xam ne uh, tënku rek ci taxaalim seex muy njàngalim sëñ bi rek kon nag yàlla na yàlla taas ci barkeem léegi nag at bu dee dee bay waneen di dugg màggal gi di bëgg a jublu si ak at at mu bees mi di bëgg a jublu si dañoo war a xam ne nag kenn ku ne dafa war a waat gën a góor góorluwaat te xam ne li sëñ bi yor ak lislaam lu ci ne la ciy jariñe sëñ bi nee na mooy ay teggin ndax lislaam sëñ bi nee na wana taxoo bi annahu kaada yakoon sulu see diini fa fadluhu mubin diine bu nu fekkoon ñetti xaaj la ñaar yi xaw naa nekk di di rek boo amee teggin rek xaw nga am ñaar mu des benn kon teggin lu rëy rëy la diine jëflante la moo tax sëñ Abdou Khadir mi ñuy waxtaane di dundam bépp ci jëflante ci jikko yu rafet ak sa diggante ak nit ñi waaye diine yëmut ci rek eh, tatbiix ko rek yow ci sa bopp déedéet sa diine ak diinu al muhammadatu mooy mooy mooy jëflante ak nit ñi jëflante nit ñi nag la ca la ca lay baas ba mooy ay yori teggin moo tax sëñ Touba ci boppam soññ lool ci ay teggin ndax jëflante gu rafet googu sëñ bi daa sonn taali bi yëpp ci taali bi bu ne ak moroom ja bëgg moroom ja moo tax sëñ ma Lamin Gaye daan daa ko tombe nii di wax ne ci nga xam ne lépp ñu ngi ko jëlee ci njàngale mi sëñ bi da ngay koy bëggal sa sa sa yow ak sa mbokk mbokk yow ak sa digganteeg sa boroom yett yi boo ko defee da nga jubóog moom topp ay ndigalam bàyyi ay teram sant ab dogalam boo ko defee sa di ngeen dégg sa borom di ngeen jubóog dëgg la <laughs> sa jaamam sa moromum lislaam di sa moromum taalibi di di ko ki nga bokkal jilit bu ngeen bokkee pexe bokk yéene bokk la ngeen am da ngeen jubóog hmm. jaambur bi muy ki nga bokkalu diine eh, bul ko bañ bul ko yeb bul ko xeeb kon ne da ngeen jubóog Eh, <laughs> kon yàlla nu yàlla dimbale bañ dégg loolu bu baax kon bu ko defee nag ngeen daal xam ne sëriñ bi bëgg gi bëgg ñëpp jariñu moo tax mu ne wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfahuhum in qafalu nee na ñi ñi ne bàmmeel ñëpp ku leen yeewoon na leen lu ngeen gën a bëgg liñ lay wax mooy ku ñu dimbali waatoon rek ñu dem àddina donte duñ fi amaat wenn waxtu as rek lañ ñuy fay mayaat ñu ngir ñu def lu baax loo xam ne buñ dellusiwaatee danañ jëriñ kon nag ñun ñi ne ci àdduna sëñ bi nee na te jotaguñoo dem te yàlla ñu fi yàgg ba ba def fi war a def lépp nee na li ñu war a def mooy màngali des suñu dund bañ cee fox bañ cee def dara lu liggéeyal yàlla liggéeyal lislaam loo xam ne boo demee foofee mu mën laa jëriñ loolu la sëñ bi digal bu ko defee nag loole lépp la ci jëkk mooy nit ki ku ne na nga xool sa digganteeg sa na nga feex ba am kersa sa digganteeg sa borom boo ko bëggee yoonu teggin wi nga bëgg a dudd mbeddum peddi teggin mi nga bëgg a dugg danga nga ci mën a solo wastaxi min nadari rabbika al karim nga fexe ba kersawu ci sa xam ne yàllaa ngi lay gis waxtu wu ne fa hadamul xayaa i siimatul la in ñàkk kersakat jikkoy ku yamaay la ndax yonent bi nee na isaa lam tastaxi fas nax nit ki bu amut kersa rek lu ko neex mën na ko jëf ab li ko war a tënk mooy kersa ab jullit li ko war a tënk mooy waxtu wu ne nga jàpp ne yàllaa ngi may gis lu baree bari doo ko ñemee ndax sa kilifa rek lu lu baree bari doon nga mu gis ko wax ma ak sun kon nag waaw teggin mbeddum tebbi teggin moomu ñu leen bëgg a dugal ak makaarimul axlaax te moo dik taali bi rek loolu al adabal adaba moom la ñu suñ jàngal al adabal adaba jàngale na ko ci masaalik nee na al adaba am na benn kenn ku doon dénkaane sëñ bee ko nettali waaye la mu waxoon kami dénk mooy al adabal adaba summal adaba wa huwa an taburra umman wa aba wal wal ammata wal axal kabir wa sheyqa inna sheyqa bil birri jadir al adaba al adaba taqool ak teggin su adaba topp taqool teggin takko teggin mu ne ko mooy lan nag léegi mu ne woowu moom taqoog teggin an taburra mooy bu ngay topp umman ndey lu la wax nga def ko waa ak bàyyi ndax yàlla lu muy wax ci ndey ak bàyyi ndey lay jiite ndax ndey dafa am dafa amalatu umoo karaxan woo daxatu karaxan <laughs> wa hamluhu fisaaluhu salaasuna sax kooku daa am ci yow responsabilité bu di ngay topp del topp sa ndey di topp sa baay lu ñu la wax nga def ko wal xam ma na ngay topp sa baay bu ndawit wal na ngay topp sa bàjjanit wac wal axal kabir sa magit na koy topp wac sayxa na ngay topp sa sëriñit daal ne inna cheikha nakab sëriñ kat jadiirun ku yeyoo la bilbiri ci topp loolu sëñ wax kon yàlla nu yàlla dimbali ci loolu mu daal ciy teg ne wa kullu man sama alayka tukrimu wa man saxura képp ku la mag dee ko wekk te di ko teral koo mag yow nga di ko yërëm boo ko defee rek ab société bu baax daal di taxaw bu ko defee it mu sëñ bi jàngal ñëw jikko ci luy defar jikko ndax dama lay na wax ne eh, diine ad diinu al muhamalatu moo tax ku ne la nga yor ci jikko joo xam ne neexu la sëñ bi dalay wax ne la nga fexe ba tàggoog moom la nga wax la nga yor ci jikko yoo xam ne xam nga ne lii tegu na ci yoon mu ne la nang sax mhm. ndax jëflante googu la bëgg diine du ca génne rek ni ma ko waxee tatbiix yow ci li ngay tatbiix yow ci sa bopp rek li mm-hmm. ngay jëflanteeg nit ñi am na ci solo lool moo moo tax mu ne ama wa kasratul xadab wa iddatun wa dayxu sadrin bi toxab mm-hmm. bu fekkee yàlla dalaa bindee la nga bari jombuloo mm-hmm. te doo ko def ci dëgg ba a mer naqari deret xatub dënn na nga nangul sa bopp ne fahiya min axlaaqi seytaanin laayin na nga wóor ne man man kat yor naa jikkoy moom ka ko yor yor na jikkoy seytaane dëgg la xaasanal muhiinu minhu kullahiin waaw sëñ bi ne ñu ne ko waa loolu mbàkke bu boobaa nag lu ci saafara mm. mu ne dawaa uhoo xilmun bi an laa fi xalaa xaqiqatan ilaa li rabbin qad xalaa li koy saafara mooy nga xam ne jaam bi di jëflanteeg man baa di gaaw a tàng ci moom la muy def yàllaa ko ko sant <laughs> damay damay damay jàpp ne lii muy def yàlla ko ko sant kon waruma ko cee manqué la nii ndax euh, euh, moom ku ñuy manant la rek di ko def defal naa nangam defal nangam defal nangam kon nag bu fekkee yaa ngi euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci yaa ngi ci jëflanteeg moom ca loola day mel ni yaa ngi dingat sa borom loolu boo ko xamee daal di xam daal di daal di mën a jëflanteeg nit ñi mu ne laa tastaki l xaajaati lil xalaa'iqi bal iftaxir ila al qadiri al xaaliq mbindeef yi bu amee aajo bu leen ko tawat tawatal yàlla rek na fi ne fii wa ahridan hanhum la dal idbaari wa aksihi waqna bi hilmil baari bu la mbindeef see noonu ko sëñ bi doxale woon aqbalati dunya ilay xab ko bi xatuwa waaw ba ma àdduna jublu see dama ko wan gannaaw <laughs> ba ma wanee gannaaw ma gën ko wan gannaaw <laughs> waaye nit ñi buñ la buñ la dëddoo ak buñ la jubloo lépp <laughs> bu ci am soxla yow daal xamuk yàlla gi na la doy na nga ittewoo loolu ba noppi nag nit ñi nag leen di xool ci ñaari bët boo ko dee danga mën a jëflanteeg ñëpp xam nga sëñ dafa jàngal ku ne na nga na ngay na ngay fexe ba boo yowee jikko jox ne gënut na ngay fexe ba mën caa génn mu ne wansur bi xay nay ni ilayhim abada xay ni sarihatin bi amrin bil huda nit ñi na ngay xool ak ñoom ñaari bët mu ñaari bëtub ñaari bët benn bi mooy bëtub sariha mooy di leen digal lu baax wanax yin ay daan wanax ay daan xan jamihil munkari maa iqaamatil hududi washkuri mooy di leen tere bon moo ndax mooy bëtub sariha bi ci nga leen di xoole di leen euh, euh, di leen digal lu baax di leen tere lu bon ku ci war ku ci géttan war ci moom nga nga géttan ko washkuri te nga sant nag ihsaanoo bu la defalee lu baax in ahsanoo waaye ku la defal lu baax nga sol ko it gënut yàlla ci yàlla musul kon noonu la ñu Sëriñ Tuubaa jàngal waaye nag bi ci des nag nee na ak waxay ni xaqiqatin ihsaanhum in ahsanoo waxay ni xaqiqatin bil xonduri hinda shayni xa batum xaqiiq bi mooy loola waaye def nga dogal ko ngante ne xam naa tëyi ko yàllaa ko yàlla ci boppam moo ma bëgg a jëflanteeg man moo tax ma mu def loo ko lii ci nga xam ne doo topp kenn lu waaye def rek yaa koy layal wala tuwaqishum bi ma xasawkaa aw manaxooka minhu aw azawkaa lii la nit ñi mooy ak lañ la lor ak ak ak lañ la xañ li nga jàpp ne dañ la koo xañ loolu lépp bul jàpp ne ci na ngay jàpp ne ci yàlla la jóge bu ko dee doo mere kenn li annahum fi qabdati ñoom ñëpp ci ngëw gu yàlla lañ ne yàllaa leen def loo rek <laughs> wa jabrihi ak manantug yàlla fii kulli ma awaani waaw yàllaa leen di manant <laughs> boo nekkee foofu sa jëflante dana rafet sa diggante ak say bok ak sa diggante ak say mbindee bi yàlla na ci ko defee nag ngeen xam ne taalib bi moom bu mbedd mii rek la war a solo bu ko defee digganteem ak ñëpp day daal rafet ndax alxuraan ci boppam moo njëkk wax ne eh, nit ki waxtu wu ne daa war di wax lu rafet te bañ a kenn safaan waaw waxoo loolu li naa si xosnaan alxuraan wax na ko day leen wax nit ñi lu rafet sëñ eh, taalibi bi it moom inal inal abada xayra rida rahmaani haysu xasada taalibi moom ngërëmul yàlla rek lay bëgg yàlla na ci amul leen foofu loolu la suñu wax kon nit nit ki na fexe ba digganteem ak nit ki rafet na feexe ba digganteem ak ay bokkam rafet na fexe ba digganteem ak nit ñi rafet na nga fexe bay rafetal ku mën a ñaawalit yow rafetalal rek ndax kenn ku ne la nga ëmb rek mooy dellusi <laughs> bu ko defee yonent bi ci rafetal googu mu doon sëñ Tuubaa doon jàngal ci la yonent bi def ay addis mu ne man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallaahu anhu kurbatan min kurabi yawmal xiyaamati ku fex ab julit bu njàq nga fexe ba tàggale ko njàqare la yàlla dana la tàggale njàqareel yawmal xiyaam wa man yassara ala mu'sirin yassara allaahu alayhi fi dunya wal axirati képp koo xam ne nga fekk ku ñàkk nga fexe ba mu womal fekk ko ci jafe-jafe nga dimbali ko yàlla dana la jàppandal yiw ci àdduna ak ci àllaaxira wa man satara musliman satarahu llaahu fi dunya wal axira ku fekk ay bi jullit yoo mënoon a weer nga nga suturaal ko yàlla dana la suturaal ci àdduna ak ci alaxira <laughs> te dégg ngeen li sëñ Saali waxoon nee na nee na doomu aadama moom buy li ñut say say ayib dalaa bëgg a weer yàlla nag moom dalaa bëgg a jéggal <laughs> ma <clears throat> wallaahu fi awni al abdi ma kaana al fi awni aqi rawahu muslim nit ki fii mi ngi jaam bi fii mi ngi mi ngi fexee dimbale mbokkam rek yàlla dana yàlla nga koy gën a dimbale yonent bi nee na maa amana bii man baata shabhaana wa jaaruhu jaaiya wa huwa yaalamu koo xam ne dangaa fanaanoo regg te ki nga sësal kër xiif te nga xam ko te mënoon koo dimbali benn kilo te defoo ko na kooku gëmuma gëmuma loolu yëpp ci bëgg diine ngeen di jëflante jëflante bu rafet moo ko indi yàlla na ci yàlla dimbali boo dee gisee alxuraan ne araayata lazi yukasibu diini fa zalika lazi yadduhul yatim wala yaxuddu ala tahamil miskin ki nga xam ne du soññ nit ñi ci ñuy leele miskin moo tax eh, itxaam gi nga xam ne sëñ Tuubaa moom la indi ci màggal gu mag gi ñu di ko def tiyaaba ji kenn mënta xam luñu toll ndax tiyaaba yi itxaam añu naroon a faat ñun yëpp sëñ Tuubaa nag ñu ba itxaam li ci yàlla dële nga xam ne eh, tëkk yu bari bu ko yàllay wax wala taxmut doona xalaa taxamil miskin mhm. arayta li si yukkasibu diin fa zaalika si yadul yatim wala ñu doona taxamil boo demee ci masalakakum fi saxar it xaaloo lam nakku minal musallina walam nakku nutimul miskin <laughs> oh. kon yal na yàlla dimbale loolu lépp nag sëñ bi daa bugg dara raw ñu moo tax mu mu loolu lépp mu dimbaliñ ci mhm. wutal ñu uh, waxtu woo xam ne ñun ñëpp danañ ci def loola ba mën a jariñ mhm. yàlla na ci yàlla ci dara jàmm bu ko defee nag lim dénk taali bi yëpp moom sëñ Touba mooy taali bi yëpp ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam ak i teggin wa sayidkum yaa jumlata tullaabi bi talabil ilmi mahal aadaabi ijtaidu fil ilmi wa taaddubi wa sahyi wa hiya jalibaatu raxaabi yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu yéen taalibe yi ci sàkku xam-xam ak i teggin faru leen ci xam-xam ak i teggin ndax xam-xam bu ëntu ki teggin dara nekk ak jëf yooyu ñoo leen di may li ngeen bëgg loolu la sëriñ Tuubaa wax te fu ngeen toll yi ngeen di defar was solxu xayrun la alxuraan wax ba tey mooy jëflante gi ma leen di wax loo mënoon fekkee lu nar a yàqu sax boo mënee fexe ba ba defar ko rek fexee ba defar ko ndax mboolem alxuraan mboolem nit ñi déyaale yi ñuy déyaale alxuraan nee na yett rek a ci am njariñ laa xayra fi kasirin min najwaahum illaa man amara bi naw aw maarufin aw islaahin bayna nas wa man yafa saali kaptixaa mardaatillahi fa sawfa nootihi a azima déyaali yi ñuy déyaali ak réunion yi ñuy def ak tëju gi ñuy tëju ci mu ñett rek ka ci am njëriñ digle sarax wala digle njekk wala digle luy luy luy yéwénal ab diggante bu dul yooyu rek amul njëriñ waaye ku def ñett yooyu ngir sàkku ngërëmul yàlla day naa la jox tiyaabu ju rëy kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ndax euh, <clears throat> xusnul istimaahi lil ulamaa yi am na solo lool ndax dana maye xam-xam fexe fexe ba borom xam-xam yi bu ñuy nga nangu koo déglu dana dana maye xam-xam am na ku ne ku sëñ Abdou Khadre daa nettali koo xam ne dara borom xam-xam ku baax la woon te bëgg diine te ne Tuubaa danaa wax naan man de jànguma waaye gede soriwul sëñ Mbàkke Buso ngi lu ma jaaxal rek ma dem laaj sëñ Mbàkke Buso <laughs> léegi léegi mu daal raw ñëpp <laughs> te mu bëgg diine lool ndeysaan gere soriwut jaaxliwu ma njàng mi soriwut waaye gere soriwut <laughs> lu ma jaaxal nga ba daal di uti gere rek laaj sëñ Mbàkke kon nag loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen bëggoon a waxtaanal ci ngeen xam ne diine mooy mooy jëflante diine mooy ay teggin ndax ci jëflante googu la lay sol ca mbeddum jëflante gu rafet googe mooy nga sóobu mbeddum teggin lalay may eh, eh, boo ci duggee nag ci ngay door a mën a ame diine ndax diine euh, ku ci ne xam na ne kenn du ku ko juddu it dañ la ci yar mooy tax nga am ko am na benn waykat bu wax de wa yansha'u naasi ul fidyaani minna ala ma kaana awwadahu abuhu ku ne lala sabaa yar moo tax ku ne ci nun la la sa bàyyi yaroon ci lislaam li yar la ko jig taali bi da ci yar sa njaboot ndax ku ne la la la la la nga yar sa njaboot rek ci la ñuy màgg di leen yar ci diine de leen yar ci lislaam di leen yar ci sëñ bi wama daana al fata bi hijan walakin yuallimuhu tadayyun tadayyuna aqribuhu xel rek mënta tax am nit diine say mbokk ñoo lay yar jaarale wan la yoon wax nga soog a mën am diine kon yàlla na nu yàlla dimbale te ngeen xam ne nag fii ñu toll ci at mu bees mii di bëgg a ñëw ñun ñëpp loolu sëñ Tuubaa waxoon ci waxtu nañ koy gën a sàmm kenn ku ne xam ne waxtu lu seer la sa sa waxtu waxtu moo gën a seer ci li nga am ndax li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali noy gu génn ci yow sëñ bi nee na wurus la wu gànjaru woo xam ne wuññikuut yum ki nu ay yestari kan sa biha te mënoon nga ci jënd trésor bu rëy boo xel woon am na benn waykatu boroom xam-xam bu wax ne alwaqtu anfasu ma unita bi hifsihi wa uraahu wa araahu ashala ma alayka yadihu wa waxtu moo gën a gànjaro ci liñ lay sàmmaloo waaye it moo ci gën a gaaw a sànku dem ci neen am na benn waykat bu ne inna la nafraxu bil ayaami naqtahuha wa kullu yawmin mada jusun min al ñun ñëpp bu bis yi ñëw dañuy bég bis yi buñ koy bu ñuy dog bis yi di maanaam bis yi jàll ku ne day bég te xamoo ne bis bu jàll bu ne ci sa dund la génn am dikk ci asar ne annahu ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa munaadin yunaadi bi lisaanil yawmi yabna aadama ana yawmun jadidun wa ala hamalika sahidun fa tasawwat waxtanim man nee na feq bu ne asar génne na ci eh, eh, eh, asar génne na ci mooy loo xam ne baxiitu euh, salaf euh, euh, baxiitu sunnati génne na ci ne képp koo xam bis bu agsi bu bees bu agsi bu ne bis ba ci boppam dana taxaw ne yow doomu aadama ji bis bu bees laa te damay seede sa jëf jiim maa jox ab yóbbal te jiima màng bis bi jiim maa màng ndax bu ma demee du ma dellusi <laughs> kon kon kon yàlla nu yàlla dimbali ba nga xam ne at mu ñëw noonu ko Seex Mamadul Fadil daa ñëw ak bés bu ñëw xam nga dégg dégg naa ci waxi fa lu mu ne euh, adduna june nit ki daa war a xam ne euh, tay rek la sa adduna jëpp tay rek la ndax démb tëggatu la ko ëllëg tëggagu ko tay rek tey jii nag da ngay fexe ba bu accès nga rafetal ko ah, bu subaa it mu ñëwee nga rafetal ko bu subaa ne sa àddina jëpp day daal di baax ah, waaw kon yàlla nu yàlla dimbali def ci ñun dégg ak topp def ci dimbali ñu it ñu ah, yiw ñuy séentu yëpp yàlla defal ñu ko te defal ñuy nag jàmm ci réew mi defal ñu ak mucc ci mboolem balaa yi ak musiba yi teñ eh, teñ ci yaa teñ ci yaakaar ci ñaanuk yàlla ñaa ñu yaakaar ci ñaan ci yàlla ci dara ji sëñ Tuubaa yàlla gën ñoo gën gën ñoo tàggaleeg balaa yépp gën ñoo defal jàmm ndax ab jullit moom ngànnaayam mooy ñaan ñaan ñaan moom ci la lépp ne waaw sëñ Tuubaa lu lu lu lu ne xasaa itam yi bayit wu jël bu ñaanee yàlla nga ne bu noppee du du am lu mu ñaanaat dëgg la bu ñëwaatee ñaanal leneen loo xam ne danga naan lii fu ko xamee waaw loolu loolu xam ku mu xam yàllaa tax ndax xam nag ko tab la te loolu yi waxoon ci géej gi te suñu saa yi daa ko nett li ci ba ba ndox mi taaseet ci tubaab bi mu ne leen yéen de da di da di ñoo xam ne ñu nay ci li ngeen yor la moo tax ma di leen ñaan ak ci sadlak ndox may yi ma yónnee sadlak ndox ngeen di ko aaye mm-hmm. bëgg jàpp mm-hmm. waaye ki nga xam ne ko tabee la te du jeexal bi ma bi ma soxlaa gis ngeen ni mu mu def day taw ba ñoom ñu yónnee ne <laughs> boo mënoon a bu ngeen mënoon a wax ak uh, kee <laughs> waaw maarab bu ngeen mënoon a wax ak moom daal ndax taw bi taxaw ndax nii Eh, Afrique centrale mii nees na ci ne taw bi day yàgg waaye li lii fi mu àgg ren nag fi mu àgg fan fan yi mosu àgg kon nag yàlla nu yàlla dimbali ñi ngi taas yu barkeb kooku rek di gën a ñaan jàmm di gën a ñaan sutura di gën a ñaan wér di gën a ñaan kaaraangeem eh, wa kullu haamin wa antum bi xayrin wasalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, jërëjëf Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke yaakaar naa mbokk yi li ñu leen waxoon dalaat ngeen bind bu yees peq <clears throat> ni ngeen di daloo at mu yees peq yaakaar naa ne ku xalaat li weesu ci at mi jël bind ci at mii ak dénkaan yi bees yi teg ko ci ba ba ngay dellusiwaat déwén da nga mën a am at moo xam ne at mu barkeel lay doon waaye at mu yàlla nangu lay doon waaye at lay doon itam atum jàmm ndax kenn du mën a xuloo ak sa morom ndax day fekk na seen diggante jàmm rek moo fa xew kon ñu ngi santaat bu baax Cheikh Mamadou Moustapha ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko fee yàggal lool gën a dolli ak wéram te yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp di ñaan yàlla itam bis bu tedd bi nga xam ne <clears throat> waxoon naa ko ca appel ba ne bis la boo xam ne bisum njëggal la waaye bis la it xam ne bisum nangu ñaan la ndax ki ci feeñ jamono suñ borom eh, ko ci mu di Cheikh Abdoul Khadir Serigne Touba moo waxoon na àndaale na ak njëggal ba ku mu taxawee suñ borom jéggal la waxoon na it ne Cheikh Maam Thierno Ibrahima borom Daarul Muxti mi koy jox aw tur ku tegeeg moom bët suñ borom jéggal la kon bisum njëggal la waaye moom it teg na tànkam ci sunna di jaamu yàlla ba noppi di taalibe Serigne Touba di ko liggéeyal ba kenn nattebliwut ne sun borom nangul na ko ak jaamoom ba yabal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fekk ko ci dëkkam bee nga xam ne moo di baxtaat te loolu nag mooy dëgg-dëgg ijaaba mooy doon woo yàlla ba yàlla na la maa ngi nii kon bisub ijaaba la it bisub nangu ñaan la muy bis boo xamante ne bii gaaw bii di ñëw lay doon ñu ñaan euh, bokki jullit yëpp ak bokki taalibi yëpp képp koo xam ne dundal nga bis bi yàlla na yàlla dugal ci njëggaluk Cheikh Abdoul Khadir googa waaye dugal la ci biir ñaanam gu nangu googa nga xam ne mooy ijaabatu ga nga xam ne am na ko ci barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul seen bokkum taalibi Fallou Galass si li moo àndoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi